listixaar nopp sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu kayit rawatina sunu mbokk yi nekk ci bitim réew ba ci sunu mbokk yi nga xam ne ci armée bi lañu nekk ñooñee tamit am na lu mu leen waajal muy yére bii ngeen di gis képp ku jog jokkoo ak moom ba mu jox la ca ay xabaar ba nga jëfandikoo ding ca am lu kawe sa njortu waaye sëriñ bi tamit jaaru yi ngeen di gis daf koy liggéey mu nekk ay karaange yu baax lool ba ci ndombo gii ngeen di gis Cheikh Baye Ngagne nee a ma ndombo gii daf ci liggéey liggéey bu doy waar lool waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu kubbeekaay ak musluwaay ndax nit kat bu ubbeekoo day wut lu ko musal sëriñ Cheikh Baye Ngagne nekk sëriñu lasraar bu yàlla baaxal képp bëgg a

képp ku jokkoog moom yal na sa aajo faju ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Moussa ñaxate ak Cheikhou Kouyaté le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñoom nag li ñu bëgg moo di temps de jeu bu doy maanaam di football ay minutes yu bari ak seenub club di Nottingham Forest suba Tottenham la ñu war a fekki match boobee 17h lay door ñaari doomu Sénégal yi nag li ñu bëgg moo di départ ca titulaire doxal bu dee Pape Matar Sarr mi leen war a dalal Pape Matar Sarr ànd ak waa am moo di gañe waa Nottingham Forest ngir wéy di am yaakaar saison bi ñu nekk bu jeexee ñu mën a qualifier dem Ligue des champions match boobee suba la nag bu 17h jotee waaye laata 17h di jot bu 16h30 jotee doomu Sénégal bi ñu naan Nicolas Jackson ànd ak clubam di Chelsea Sheffield United la ñuy fekki doomu Sénégal bi nag li mu bëgg moo di doxal ca match boobee dugal fukkeelu bitam ci Premier League bi muy Nicolas Jackson bu Abdallah Sima moom derbi bu rëy moo réewu Écosse Celtic Glasgow mooy jàkkaarloo ak Rangers Glasgow match boobee suba la bu 11h jotee lay door dina tàng nag ndax ñaari équipe yi dañuy dàqante ca championnat boobee Celtic moo jël pee waaye benn poñ képp la rawee Glasgow Rangers match boobee nag ñoo ngi cay xaar bu baax doomu Sénégal bii ñu naan Abdallah Sima journal bi tamit ñëw na ci Seyni Dieng moom ma nga ca Middlesbrough di doxal Middlesbrough nag ma nga ca deuxième division bu Angleterre ñu naan ko championship Diop dañu ko bëgg club yooye bokk na ci Newcastle nekk ca Premier League ba Séville nekk ci riiwu Espagne di doxal ca Liga e-sport ba club yooye yépp ñoo ngi bàyyi xel bu baax doomu Sénégal bii di Seyni Dieng nekk gone gu mën la muy def footballub Sénégal it journal bi ñëw na ci rawatina seenub ministre lu ci musul am nag moo ci am ndax ministre des sports Sénégal nekk jigéen loolee musul am am nañu ko nag léegi ndax démb la ñu siiwal gouvernement bu bees bi ministre des sports bi nag jigéen la mi tuddu tudd Khady Diène Gaye moom la ñu tabb mu doon ministre des sports ba noppi doon it ministre de la jeunesse loolee nag mosul am ci footballub Sénégal ministre des sports jigéen yor ko nañu ko ñaanal nag mu bind fi taarix ñu juge stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fo record yéenekaay Pape Matar Sarr ak Moussa Niakhaté mi war a jàkkaarloo suba la journal bi fësal wu njëkk wa match boobee nag sénégalais yépp a ngi koy xaar mu soxal Premier League suba la bu 17h jotee bu dee waa Nottingham Forest ñoom am nañu ñaari doomu Sénégal muy Moussa Niakhaté ak Cheikhou Kouyaté bu dee Tottenham mi ñu war a jàkkaar lool am nañu ab doomu Sénégal muy pap Matar sar suba nag dinañu def rénkum jàkkaarloo kon gaa ñi xaar leen match boobee suba la incha allah journal bi tamit ñëw na ci Ligue 1 bu Sénégal tey jii la ñuy door dix-neuvième journée bi maanaam fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi tey jii nag ñaari match képp la ñuy xaar ci bu Sénégal jamono bu Fatick war na jàkkaarloo ak Guédiawaye football club AS Pikine war a jàkkaarloo ak US Gorée ñaari match yooyu yëpp nag quatre heures et demi lay door suba nag la ñi jiite Ligue 1 bi di football waaye ñaar ñi jiite ligue 1 bi nag ñoom ñaar ñëpp suba ay académie la ñuy jàkkaar lool ndax bu dee Tëngéej football club ñoom jàmbaar la ñu war a jàkkaar lool bu dee waa Jaraaf ñoom génération foot la ñu war a fekki match yooyee suba la tey ji nag ñaari match képp moo am soxal ligue 1 bu Sénégal ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe waa Lille la journal bi fësal ci xët wu njëkk wa ak jaloore ji ñu amal démb moo tax sournal bi ne Lille de fay na Olympique bu Marseille démb dañu ko dalal duma ko duma yu mitti ñetti bal ci benn liil nag jamono ji fawuñu li ñu bëgg moo di saison bi ñu nekk bu jeexee ñu dem Europe moo xam Ligue des champions la wala Ligue Europa démb ndam lu ama am solo la ñu am ci kanamu Olympique bu Marseille waa Marseille moomee nag ñoom soo moytuwul Europe moom duñu ko dégg ndax ñoo ngi koy gën a sori jamono ji ña nga ci juróom-ñaareelu place ba maanaam septième place ba kon seenug dem Europe lu ñuy seetaat lay doon moo xam Ligue des wala Ligue Europa bu dee waa Lille moom bëgg-bëgg bi ñu am moo di dem Europe loole la journal bi xamle tey ji nag bu 19h jotee ñoo ngi xaar match bu nar a neex di dox ci diggante Paris ak Clermont bu ñoom Mory jaw match boobee 19h lay door soxal Ligue 1 bu France. ñu jugee France wutali Portugal fekk fa Abola match bi Portugal gépp di xaar tey jii la journal bi fësal ca wu njëkk wa di dox ci diggante Sporting bu Portugal ak Benfica match boobe nag mi ngi soxal jàkkaarloo nañu ñeenti yoon kenn ku ne gañe nga sa morom benn yoon la ca des lépp ay match nul la moo tax journal bi ne dernier combat bi tey jii la maanaam xeex bu mujj bi match boobee nag Liga nos la soxal ñaari coach yëpp nag ñi ngi wax ki njëkk a wax moo di Ruben Amorim mi nga xam ne mooy tàggat Sporting moom nee na li mu bëgg moo di ñu téye jeu bi maanaam football bi ñu téye ko am Diop indi Ndiaye doxal am ndam loolee la xamle moom Ruben Amorim mi tàggat Sporting fi daanelee rek fi la ko Schmidt mi tàggatee Benfica di tonte nee na ñoom li ñu bëgg moo di créer ay occasion ba noppi efficace maanaam fexe togg lu leer ba noppi yàq ko dugal ay bit jamono ji nag Liga nos boobee mi ngi tàng lool Sporting moo jiitu waaye benn poñ képp moo dox ci digganteem ak Benfica tey ji nag dinañu def rénkum jàkkaarloo ñu jugee Portugal wutali Londres Angleterre fekk fa Sun Sport waa si rawatina ki leen di Mauricio Pochettino le journal fësal ca xët wu njëkk wa muy célébrer maanaam muy wane mbégteem bërki démb këlëbam di Chelsea dañ doon jàkkaarloo ak Manchester United mëne ko ñaari bal ci dara waa Manchester United ànd ak Erik ten Hag remonté ko mëne ko ca biir match ba ñetti bal ci ñaar ca jamono joojee nag mbir mi waxoon na ko xatt ndax kat supporteru Chelsea yi dañ ko doon yuuxoo naan ko xamoo dara waaye moom dafa jëmbat fulla faale wu leen ca cëppaandaw ga nag Chelsea moo am ndam bal ci ñett waaye jeexee da doon wane mbégte maanaam da doon célébrer victoire bi nga xam ne am na ko ba noppi di tontu supporteru Chelsea jamono ji nag diggante Mauricio Pochettino ak supporteru Chelsea yi dafa ñagas lool maanaam seen diggante rataxul dara li yokku xar mi kawar nag moo di tontu bi nga xam ne tontu na ko supporters yi bërki démb bi ñuy jàkkaarloo ak Manchester United ba noppi am ca ndam loole la journal bi le Pep Guardiola wit mi ngi ci journal bi ñoom nag tey jii bu onze heures et demie jotee dañuy jàkkaarloo ak Crystal Palace Pep Guardiola mi ngi wax nee na match bi de tey jii bu ñu ca amul ndam sunu yaakaar nañu ko génne ci Premier League bi li ñu bëgg nag moo di am ndam di wéy di am yaakaar waaye ndam moom bu ñu ko amul nañu bàyyee Premier League bi ak ñi ko jiite jamono ji Liverpool moo jiitu Arsenal topp ci Manchester City nekk ca ñetteelu place ba li ñu bëgg nag moo di am ndam mën teg pression ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite jamono jii muy Liverpool ak Arsenal tey jii nag li mu bëgg moo di am ndam ci kaw Crystal Palace moom Pep Guardiola. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kaay final coupe du roi bi Espagne gépp di xaar tey jii le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Athletic Bilbao mooy jàkkaarloo ak Mallorca match nekk stade bu mag foofee ca réewu Espagne dëkk bu ñu naan Séville bu vingt heures jotee nag lay door journal bi nag mi ngi ñaax ñaari club yépp ne leen yéen ñépp xam ngeen nu ñuy amee ndam Espagne jépp a ngi leen di tey jii bu dee waa Athletic Bilbao moom li ñu bëgg moo di jël ko ndax gëj nañoo jël Coupe du quarante ans ndax mille neuf cent quatre-vingt-quatre la ñu gëjoon jël coupe du li ñu bëgg nag moo di jël coupe du bii nga xam ne tey la ñu koy jongante Valverde nag mi ngi wax nee na dañu doon gént ñëw ci final bi ñëw nañu ci nag li ñu bëgg moo di jëmbat ful la jël ko ñun waa Athletic Bilbao loolee la Valverde xamle bu dee waa Mallorca mi ñuy jàkkaar lool ñoom li ñu bëgg moo di jël ko ndax vingt et un maanaam ñaar fukki at ak benn jëluñu coupe du ndax ci atum 2003 la ñu ko gëjoon jël li ñu bëgg nag moo di doggaliwaat loolee jël coupe du roi bi waaye ki leen di tàggat tuddu raay mi ngi wax nee na match bi waajal nañu ko li ñu bëgg moo di jëmbat ful la jël ko ndax ñun dafa mel ni dañ ñu génnee ci safara dugal ñu ci aljana loole la le moom raay match boobee nag vingt heures lay door tey jii Toni Kroos mi ngi ci surnal bi moom nag yokku contrat am ci Real de Madrid ci moom képp la des ndax dossier yépp jëbbal nañu ko waa këram moom képp moo yor ca gulguyam keñ la ko yokk loolee kenn ko waaye jamono ji moom lépp yemb sukkandiku ci marka yéenekaay ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it final coupe du roi bi la fësal ca xët wu njëkk wa journal bi nag nee na lii du final gént la ndax kenn xalaatul woon final coupe du roi bi dox ci diggante Athletic Bilbao ak Mallorca kon gént la gu ñëpp doon xaar tey ji nag la ñu koy amal bu vingt heures jotee ca la Cartuja bu dee waa Athletic Bilbao moom bëgg-bëgg bi ñu am moo di jël ko quarante ans après maanaam ñeen fukki at ci ginnaaw ndax ci atum 1984 la ñu ko gëjoon jël Valverde mi leen di tàggat nag mi ngi wax ndax gaa ñi dañu ne ko yaay favori mu ne loolee de dérangé wu ma waaye li ma bëgg moo di doxal jëmbat fu la jël coupe bi loolee la Ernesto Valverde xamle bu dee raay mi tàggat Mallorca moom mi ngi wax toogee de dama fa bari lool ay maam tey nag li ma bëgg moo di doxal ak sama club di ko loole la raay le journal bi tamit ñëw na ci Rodrigo Goes doomu Brésil bi nag jamono ji mi ngi ci forme te wane na ko bërki démb bi clubam di Real da Madrid di jàkkaarloo ak Athletic Bilbao ab doublé la amal laata ñuy jàkkaarloo ak Manchester City match boobee mardi la moom Rodrigo nag li mu bëgg moo di la mu defoon ci atum 2022 mu dàbbali ko doxal ànd ak Real de Madrid am ndam ci City loolee la journal bi xamle ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa kay Ikay Gundogan la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa journal bii di esport nag dafa dalal doomu Allemagne bi ñu seq waxtaan bu yaatu lool bokk na ci li mu njëkk a wax nag nee na ñoom waa Barcelone ba léegi ñoo ngi gént ngir jël liggéey champion bi te loolee lu mën a nekk la am nañu ca yaakaar moom Ikay Gundogan moo xamle kàddu yooyu waaye wax na tamit ci ñaari gone yi nekk ca Barcelone di doxal yamal nee na xale yépp dañoo war a roy ci ñoom ndax ñaari gone yi bu ñu duggee ci terrain bi dañuy jëmbat ful la football doxal te du ñu xalaat dara kon gone yi tolloog ñoom ci ay at nañu roy ci ñoom ndax gone yu mata roy lañu loolee la xam le waaye wax na tamit ci Xavi nee na bëgguma nag Xavi jugee ci Barcelone bi ma ko déggee am naa lu ma naqari waaye nangu naa ko ndax football moom nii lay demee tey ak ëllëg ñoo ànd man mii di Ilkay Gundogan nag xam naa football bu baax ndax loolee doomu Allemagne bi xamle journal bi tamit ñëw na ci Joao Félix kii wax ci moom nag moo di président wu Atlético de Madrid bi ko moom tudd Enrique Cerezo moom nag dàqul ablewaat ko foofee ca Barcelone su fekkee waa Barcelone bëgg nañu koo abbaat président wu Atlético de Madrid noppi na ngir abalaat leen ko loolee la esport xamle. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it final bi Espagne jépp di xaar tey jii soxal coupe du roi la njëkk tamit fàttewul waa Barcelone ñoom nag ñoo ngi waajal seen match bi war a dox seen diggante ak Paris tey ji nag la ñuy amal examen bu mujj ngir ñaar ñii muy Pedri ak Frenkie de Jong ba ci Andreas Christensen tey jii dañuy amal match bu ndaw ca entraînement ba Xavi nag li mu bëgg moo di saytu ñett ñooñee muy Pedri Christensen ba ca Frenkie de xool ba xam bu ñuy jàkkaarloo ak Paris dinañu ca mën a bokk am déet ci match bi muy organiser tey ji nag ci la koy xamee natt seen doole su fekkee dinañu mën a bokk ci match bi war dox ci diggante Paris ak Barcelone noppi na ngir boole leen ca waaye su xoolee xam ne ñii mënuñu caa bokk du leen ca boole journal bi tamit ñëw na ci Vinicius journal bii di Mundo Deportivo nee na waa Paris noppi nañu ngir def ci doomu Brésil bi deux cent millions d'euros ngir jëlee ko ci Real de Madrid yóbbu ko ca Ligue mu doxal xam xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve le surnal bi fësal ca wu njëkk wa ñoom nag teg nañu seeni palang ngir amaat kaalis ànd ca ak ñi leen di jox xaalis bokk na ci Elkan li ñu bëgg moo di saison bi ñu nekk bu jeexee ñu am quarante millions d'euros comme ni ñu ko doxalee woon ci atum 2017 jamono ji waa Juve ci loolu la ñuy liggéey ngir suqaliwaat seen club boobee waaye foofee ci itali tey jii ñoo ngi fay xaar match bu nar a neex ab derbi la nag Lazio de Rome mooy jàkkaarloo ak AS Roma match boobee Italie gépp a ngi koy xaar bu dee De Rossi mi tàggat AS Roma moom ñaari weer képp moo ko dese ca club boobee li mu bëgg nag moo di saison bi ñu nekk bu jeexee waa AS Roma kontaan ci moom li ñu ko xaatimaloon cib contrat moo di file ak saison bi di jeex yokkaguñu ko nag ba léegi kon ñaari weer a ko fa dese bu dee Igor Tudor mi tàggat Lazio de Rome moom li mu bëgg moo di am ndam tey jii soppi xar kanamu Lazio de Rome indi fa yeneen bopp yu bees tàq waaye am na ay absent tey jii buy jàkkaarloo ak AS Roma li mu bëgg moom Igor Tudor nag moo di am ndam ànd ak waa Lazio dorom Rome nooyi waat ca Serie A ba ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Thiago Motta mi tàggat Bologna la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa jamono ji na club yi ko bëgg bari nañu lool yuufe moo ci njëkkoon nekk ba sori ca lool jamono ji nag waa Manchester United ñoo soobu ci ay mbiram Manchester United li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Bologna yóbbu ko ci seenub club mu wuutu fa Erik ten Hag muy cago Motta nekk coach bu mën la muy def jamono ji waa Manchester United ñoo ngi xalaat ci ay mbiram loolee la journal bi xamle journal bi tamit ñëw na ci Federico Chiesa moom nag soo moytuwul léegi mu yokk contraam ci Juve li ko waral moo di kat club bi suñu qualifié coupe du de des clubs dinañ ñu yokk contraam te loolee daanaka Juve am na ko coupe du de des clubs nag ku fa qualifié da ngay am ab xaalis xaalis boobee ñu cay amee li ñu bëgg moo di def ko ci contra wu Federico Chiesa mu yokk ko